jërë ngeen jëf mbokki internet yi ginnaaw bañ leen nuyoo ñu ngi leen di jaajëfal ñu ñëwaatal leen ci kàddu yi nga xam ne nii kii di Bouba Ndour yëkkati na ko di Bouba Ndour nag rafetluwul la nga xam ne nii moom la kii di lemin Dias def ak kii di Khalifa Sall ndax kii di Khalifa Sall ak lemin Dias loolee noonu ñu def rafetlu ko ndax kii di lemin Dias ak Ousmane Sonko ñu fi nekk ndawoon di opposé wu loolee nag la kii di Bouba Ndour daal di xamle kon tey bu ñu demee ba gis ne kii di Khalifa Sall ak parti Lamine Dias dem nañ wuy ki nga xam ni moy mooy njiitu réew mi Macky Sall lolé nak day melné Abdil kaddu yoyé nak la daal di yëkkati nag rafetluwul benn yoon la nga xam ni mom lañ def té lolé mën naa indi njàqare ci sénégalais yi nañ leen àndandoo diglu kaddu yi nga xam ni mom la ci bubandour yëkëti té ñu euh, parti Lamine Dias parce que aussi nit ñi nit ñi dañ lay juger si sa si sa constance. ak si sa façon de faire. depuis des années depuis 2 3 ans. ki gëna a virulent peut-être si opposants yi c'est euh, Barthélémy Diaz peut-être Ousmane Sonko Barthélémy Diaz il a posé des actes depuis un certain moment il s'est un peu calmé quand même nan waxante dëgg gëj nañu gis Barthélémy Diaz mu génn nekk si mbedd bi fëgg fëgg feug fëgg table ken waxul waru ko def mais si loolu lañ la xamé nit ki aussi buñ la xamé ci lenn bo ben moment gis ni nga def ni après les actes yi yi posé du ben rek mo jox depuis bobu ba légui actes yi gars yi posé yépp yu topanté si logique bobu la nek nan waxante deug boo xoolee photo bi xam ne lii gars yi waxtaan nañu gars yi ñu ngi waxtaan Khalifa Sall leneen intéressé wu ko fu mu ne nii pour gisee ak Macky Sall lu dul candidature am man sama en tout cas ça m'engage leneen du int du ay mbay mi du économie bi du dara sama sama naa bokk ci élection yi te pour ma bokk ci élection il faut ma toog ak waa ngeen jëf mbokki ndoxnoot yi ginnaaw kàddu yi Bouba yooyu nag ñoo ko bokk dégloondoo dégg ngeen kàddu yi nga xam ne nii moom la Bouba Ndour yëkkati mu jëm ci Khalifa Sall ginnaaw Khalifa Sall nag ba mu génnee ne moom na bokk rek ak nu mën a bokkee ci élection yi di ñëw baax na. gannaaw kàddu yooyee nag tax na ñu yëkkati ay kàddu kii di Khalifa Ababacar Sall bëgg bokk ci présidentielle yi di ñëw moo tax mu wuy ji jalak boobee ndax jalak boobee nag kii di njiit réew mi Macky Sall woote na ko waye dara warulu ko luddul intérêt ji nga xamni ni ki di njit rew mi Macky Sall am ko sa jalak bobé nga xamni ni woté nako waye ki di Ousmane Sonko nak mom dafa wéy di lank jalak bobé nga xamni ni ki di njit rew mi Macky Sall woté nako